Welcome. I'm single. asalaamaaleykum asalaamaaleykum yéen ñi seetaan Sahel entertainment ñu ngi waat fii ni ci biir marché Banjul añ ko doon laajte faale daal ngoya ngi ni ñu ngi fii góoras bitik kon nag nañ ànd dugg ci biir rek ñu xool yu baax yu ñu amal yu rafet yi macha allah comme yi ngeen gis suma gannaaw ay ca bisimilah. asalaamaaleykum ñu ngi waat fii nii si biir Goros Bitik maa ngi am ku ma toogal asalaamaaleykum. Uh, waaleykum salaam ñu ngi lay fay bu baax a baax. Njaay fii mooy Goros Bitik képp ku lu bëgg lu baax rek fi ngay ñëw bu mag am nañ bu nekk Banjul am nañ bu nekk Tepe Garage. jërëjëf Saliou kontaan nañ si li ngeen ñu dalal ñun la waa Sahel Entertainment ñoo ñëwoon seet si seen bitik bi so wan nga ñoo mun a wax si Goros Bitik. Goros Bitik luñ ci mën a wax bari na parce que Goros chaque jour mu ngi def lu luy bégal Gambien ci lay dox. ndax day dem bay ay Corée dem ba ay Dubaï fépp foo gis pis bu baax rek góor dina fa dem pour bégal gambien yi kese looloo ko tax a jóg bañ na sax ba moom lu muy toog bëriwut spécial pour gambien di kontaan pis bu rafet bu mu gën a gis même sénégalais sax dañuy ñëw fii jënd pis pour yóbbu ko Sénégal parce que moom ci yooyu lay dox ko wàcc chaque jour mu ngi dox ci façon chaque jour mu ngi dox lu xew lu tegu ci temps bi ci moom lay dox suba ba ngoon jot góoras bëti boo fi ñëgul perte ngax ndax liñ fi am mënoo ko am feneen fii la mburu mi di xoyam xoyamee kon daal ñu ngi woo Gambien yëpp ak àdduna bépp ñu ñëw Goros boutique visiter ko pis bi rafet nañ nice nañ loo fi bëgg am na fi dañoo jàpp ne pisu Goros bi dafa seer non non gars yi dañuy wax rek lu am na lu yomb am na lu seer lu baax mun te yomb mais boo fi ñëwee macha allah li nga fi bëgg yëpp di nga ko fi am bu baax muy bébles muy tilyeeg muy jasneer muy loo soxla rek góor pisu góor loo soxla rek am na Goros boutique loo so benn ndaw la woon xam ne jóge Sénégal ñëw Gambia xoslu ba am li mu am maa am li mu am ni xëy rek am ko maanaam xoslu moo ko may ni ndaw lu nekk da gëm sa bopp ci taabal lay commencé ba ci cantine ba ci boutique bu ndaw ba ay te yàlla ubbil ko lii mais ba tey ñu ko xam démb ak tey mu mësul woon ne dara ñàkk fayda même ñun ay rakkam sax du ñu woon loolu lañ ci loolu yoon woon la ñu teg quoi chaque jour mu ngi woon ñi loo gis a gëm-gëm la góor ñaata at mu nekk Gàmbi presque léegi mu def 30 ans léppam fii la ko def fii la dëkk moom njabootam lépp Gàmbi nit ku baax yi bari xam na leen fii bu baax a baax ca musoo ko dégg ci naka su du noonu lu mu gëm mooy fighting liggéey la gëm dafay jàngale chaque jour ndaw bu noonu rek na gëm sa bopp gis nga lu commencé ci taawal ba ci boutique xoola loolu ñaata at la loolu du ay caaxaan chaque jour mu ngi dox ci loolu ndànk-ndànk ba yàlla may mu am nii waaw 30 ans means 30 years comme suma mbokki Gambien seen niñ lañ ko mën a waxee waaw lan moo gën a cher si biti bi ak lan ngeen dee mën a gën a jaay. fii lu nekk lañ mën a jaay parce que xam nga ñun am nañ bagage góor am nañ bagage jigéen am nañ piis yu xew am nañ ay jasneer même ba ci focus jasneer xam nga mosoo koo dégg yaa ngi koy doog a dégg c'est la première fois mu am fii ci am nañ ko gars yi amuñu ko woon de mën nga ko wër gaan ba suñ doog gis focus jasneer laa yombul dafa rafet macha allah mais. lu fi gën a dox lu fi gën a dox til bokk na ci brodé mbasin parce que am nañ mbasin riche boo xam ne boo ko gisee comme jasner am na gars yi mbasin riche boo xam ne boo ko gisee bu leen nee jasner da nga naan waaw lépp lu baax rek mu ngi koy def pour gambien yi lépp mu ngi koy def pour gambien pour bégal gambien doomu gambien parce que góor is love gambia góor dafa bëgg gambi góor bañ ne bu événement lépp fi la koy defee gambi ndax bëggum bëgg gambi parce que gambi dafa delloo njukkal gambi parce que gambi da koo jox da koo jox dara ba pare mu delloo njukkal gambi bariwul de moom noonu la defal Gambie yi bu baax. am na kontaan nañ si te gis nañ ko tamit si Gora euh, léegi lan nga ñoo mën a wax ne difficulté si ngeen a fees Gambie yan tolof tolof ngeen a mën a fees si biir. Ah, macha allah mun nañu mbégte la ñuy dund fii parce que amuñu fi tolof ci yàlla bu ñu fi am tolof tolof ñu ngi dund mbégte su suñuy xarit lañ bën nañ ci ay ani jàmm. ñu ne Gambien daal benn ñun sax ay Gambien lañ parce que boo demee ba dëkk ci dëkk dem ba am ay kayitu Gambien normalement ci dëkk bi nga bokk ñun ay Gambien lañ parce que ñun man tabaski fi laa koy defee korte fi laa koy defee màggal ba màggal laay dem Sénégal kon xam nga man Gambien laa yàlla ma yàlla may jabaru Gambien rek <laughs> ma doon Gambien benn <laughs> dafa neex Gambie non dama laaj Gambie man barke yàlla man dama bëgg Gambie dama ko laaj bu baax a baax a baax. ah leen di am tolof tolof tam si taxi ngeen dee fay. boobu boobu xam nga dëkk ku fa nekk na dëkk boo di doxee ngay defee. dëkk ku fa dem ci dëkk la waa dëkk bi di doxee ngay doxe yaa ngi dégg macha allah alhamdulilah amuñu problème boobu quoi sincèrement ñu ngi doxe comme lu ci lu ñu war loo xam ne yoon mu ngi ñu ko teg rek ñu ngi koy tegoo bu baax a baax ñu ngi lépp ñu ngi koy jaaral ci yoon yaa lépp ñu ngi koy jaaral ci yoon bu baax a baax a baax. Goros moom dafa nekk benn kii boo xam ne du événement kese léegi parce que lépp lu bëgg lu baax muy takk muy ceet muy ngénte muy loo bëgg rek góor da ko am léegi. bañ na ba amatu événement ñun amuñu événement ñun chaque jour événement la ci ñun ndax chaque jour lu façon lu façon la ñu indi duñ bàyyi ba événement ñu indi yeneen yi chaque jour ñu ngi indi lu xew ci jamono piis yu bees loo soxla filaafil yi gis nga filaafil yi xale yu góor yi damaa bëgg ñu ñëw di sañse bu baax buñ ko bàyyee jigéen ñi ñëw def lu baax am nañu yu baax ay super sang yu baax ay coton yoo xam ne c'est spécial doo gis feneen oyof na ci seerut ñu ñëw di ci sañse bu baax seen yu baax a baax a baax ñun amuñu événement ñun moom chaque jour dañuy dóor muy daan tak ay Baay Faal lañ man kay gis naa loolu gis leen yu baax yi rafet yi ngeen yor macha allah. lii payet bu baax loo ko solee boo ko solee da ngaa sentir dafa overnice ba pare ci du def de original la du la def dara ba pare gis nga yii gis nga tël bi nii gis nga bii doo ko gis feneen fu dul Goros Boutique am nañ tamit ay tul yoo xam ne yu raar la yoo xam ne doo gis fenn ak ay brodé arlas yi xam nga yi brodé arlas yi lii a foo ko sol nañ la xoolaat amul feneen fii rek la am gis nga brodé yi boo ko gisee da nga naan dafa yomb mais boo ko solee non vraiment da nga ciy gis sa bopp ñun daal ñu ngi woo Gambien yëpp ubbi na ñëpp suñuy bunt nan leen welcome. jànq ji laa faral man kon jànq jeeg jeeg yi man jànq ji laa faral parce que jànq ji moom ñooy lii ñoo ko gën parce que xam nga lu tax pis estal moo koy jaay jànq ji ñu ngi ciy ñëw ay tey yu toog barki Serigne Touba ay tey yu toog lañ ciy ñëw billahi wallahi taala motax li ñank ji sax ñoko gëna jënd ka mère parce que mairie yenn saa dañ ko mais ñank ji bo leen no estali yi ñoo baax barke Bala euh yalla yalla bay sa tol gis nga aduna ci table ngay commencé togo dem ci kaw gis nga chaque jour nga yor dara sa di ko jaay di ci am ken dalas loolu rek dara la bu yagge ten dalas yoy, bu yagge mom moy doon lu doon xam ma la lay bañ xam ah dama xaar wala suma demul bitim rew duma tek no non non fi meun nga dukk ci dekk bi yaru ci dekk bi ci dekk bi mag ci dekk dekk tek ci dekk bi ñi nga gis ñu am dara ñëpp bu ñu sen commencement da nga naan déedéet dañoo xostu xam nga lutax aduna bi da ngay xostu bul xeb dara xey fajar tel même boy raxas auto sangar raxas moto même bo xëyee dem marché di jaay dara sangar jaay ko tok di campus amul ben njariñ ñu genn jema a trahi dañuy wax liggéey amul afrika afrika amna Africa mooy njëriñu ëllëg Africa nañ ko jàpp Africa nañ ko dooleel gis nga ndaw yi nañ gëm seen bopp xam ñooy kan xam ñooy lan àdduna commencé xëy rek sorti da ngaa def pati petit à pati petit à pati bu yàggee dafa baax loolu laay conseil benn yëpp benn ndaw bu benn dekku ndaw découragé bu benn ndaw jël gaal naan day dem bitim réew nañ toog fii Africa liggéey suñu réew ñun ñoo moom Africa liggéey ko ndax ëllëgee lu nekk fii lay ñëw Afrique lay mujje jërëjëf Saliou léegi lan man daay li may tëjee ñu ngi sant client Goros boutique yëpp di woo Gambien yeeg àdduna bépp ne nañ ñëw visiter si Goros boutique parce que Goros boutique kat ñàkk ko visiter wóorul ca boo bëggee lu baax sincèrement lu élégance ñëwal Goros boutique fii lépp di xewee du ko sol kesoon fii fi nekk de mais boo ñëwee Goros boutique nga xool bagage yi doo ko gis feneen en tout cas jasneer focus bu ñu am jasneer bu ñu am am nañ ay brodé yoo xam ne boo ko solee foo ko sol dañ naan la léew foo jëlee lii ñëw leen Gambien yi doomu Gambien ngir yàlla maa ngi leen ñaan nañ ñëw bu ko ras boutique visité ko am na yu baax yu ñuy jëlee ci yem di ay Dubaay yëpp góor da leen ko ay Corée ay Amérique yëpp góor indi na leen ko pour noppal leen kenn faytul paas kenn faytul dara nañ ñëw fii Goros Boutique fi la mburu mi di xoyamee maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñëpp jàmm Gambie yàlla fi yàlla def jàmm. kontaan nañ si saali bu baax si kontaan leen kontaan leen ngeen jëf yéen mi di faral di seetaan Sahel entertainment jaajëfal leen bu baax.